danger ko caxabal na ko mu bañ. daw daw taxaw moo. danger dafa daw taxaw Lamine. da ko doon sàcc si. kii wëlbatiku ñàlli Usain Bolt. waaw nax la. xanaa da ngay a tàbbi ci làmb loolu nax la. ñu ngi ah, waaye dara amul asabla. waaw ro. ña ngay xeex. waa kii sikki ma mi takk suuf. fëgg rek. tell tell ñu dégg la sikki ma takk suuf nii daanuwul. tey ñu daan la. li mu jël bari na naan booy bawol la ngay door. waaw Ngunjaan bawol tey mu. la la la escanté nañu Ngunjaan. Ngunjaan mënatu la xool. arbitre ba karamp na. arbitre ba karamp na. arbitre ba karamp na. arbitre ba karamp na. arbitre ba karamp na. arbitre ba karamp na. arbitre ba karamp na. soufflé waat nañu arrêté nañu Sangu Jaan Alaaji Cerno Njaay juge juge be wala arbitre bi ñoom ay arbitre lañu rek ñoom ñaar ñëpp déedéet juge lañu arbitre central kenn rek la ku crampe juge bi Ngunjaan fëgg na ko de lami dal na de fëgg bu dal ba mu jeng ba mu tërëf saa Nguñaan mooy Bawol. Nguñaan Nguñaan na bañ roofoo waaw waaw waaw Bawol roofoo bi la am xañ ko roofoo bi rek. ba pare moom day soog soog tey ñu la Nguñaan. Nguñaan da ngay daw. Nguñaan danañ la dóor nga daanu. Nguñaan danañ la dóor nga daan laay laay la laa Nguñaan. bete guerre. Nguñaan cong mi sori. waaye Nguñaan li ngay song ni ko song. Bawol Bawol rëpp na. laay daan nañu Nguñaan. Nguñaan war nañ ko ndombo. ay waay daan nañu Nguñaan. ah Bawol daan na Nguñaan ku ñaan laay gisatul gisatul déggul. waaye xoolal supporter yi. yee metti. xoolal supporter yi. ba arbitre ba. arbitre ba arbitre ba arbitre ba laay laay ba dem na Ardo. arbitre ba dem na Ardo. arbitre dem na Ardo. arbitre dem na Ardo. wuy yaay arbitre ba dem na Ardo. waaw combat bi day consigne laa bëre dama entraîné. dama bëgg Assane Ndiaye xoolal billaahi dafa baax daf ñu jàppale bu baax dama bëgg mu jox ma si gars yi si kaw xoolal trompeur sax war ma ko laaj quoi mais suñ combat maak moom yoon la benn defet la am benn defet la am maa ngi sama dix combat billaahi combat la combat bu rëy na ko Assane muy tëgg eh, rebége nuyu nañ leen mbokku téléspectateurs yi mbokku amateurs yi nga xam ni euh, dimanche bu nekk ñooy ànd ak ñun ci seen émission jongante gis ngeen lu bees li nga xamante ni mbokk yi moom la ñu indi ci seen émission jongante parce que dañu ne la télévision c'est l'image moo tax pour wan leen nii fii rek fii dong la périche bi tàngee te fii rek lay xoyom-xoyomee moo tax ñu indi leen lamb ñi nga xamante ne nii moom la waa Bawol production rawatina Assane Ndiaye euh, tëggoon ajjuma mu doonoon drapeau salaam jalloo di sama mbokk di sama xarit ndax maam maag moom ñoo bokk Lat Dégéen euh, ñoo bokk Adja Dégéen Kumba Joor euh, ñoo bokk suñu bakka sàmb mu tuddee ko lamb Assane delloo ko njukkal kon mu nekkoon làmb joo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokkoon gis ngeen ni làmb ja xumb na neex na waaye Assane Ndiaye daf ci boole woon signature contrat mbër yi nga xamante ne ni moom la tëgg gis ngeen ko ci mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bégg nañ leen kontaan nañu ci yéen waaye dafa am loo xamante ne ni dañu koo tàmm def ak yéen ndax ku wal mburu il faut nga tëgg nga tuddub dëkk ñu ngi nuyu ñi nekk ci biir réew mi di daan seen doole am liggéey lépp lu ñu liggéey yàlla na ko yàlla ful ñu yokk ko yokk seen xéewal ba ñëpp ci ñi amul liggéey mbokk yi euh, nasaraan di ko wax ay chômeur yal na leen yàlla may liggéey boo xam ne daañ ci mën a tedd teral ci seen waajur teral ci koo xamante ne ni képp koo xam ni xaj na ci ñi nga xam ne gisuñu seen bopp fii ci biir réew mi ba dem ci bitim réew euh, di fa daan seen doole it ñoom it yal na leen yàlla may liggéey boo xam ni euh, lépp lu liggéey yal nañ ko yàlla barkeel Euh, te mu may leen xéewal boo xam ne daañu ko ñëw investir ko fii ci biir réew mi Sénégal ndax jàmbaar dawul dafa wuti doole ñu tëdd ci lalli hôpital yi ak kër yi yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellusiwaat ci seen sago mbokk yi du ñu fàtte ñi nga xam ne ñooñi la caabi féete ginnaaw ñu leen di wax ay prisonniers yal na leen yàlla may liberté ndax liberté dara dàq ko ndax euh, dañuy jot ay information kii wane ni que ñi nga xamante ni ñooñi la caabi féete ginnaaw dimanche bu yàlla sàkk dañuy koj fi bi tànge ak di fi xoyam-xoyamee yal na leen yàlla may liberté ñu ngi jéggalu mbokk yi ndax boobu ak léegi dañoo waroon commencé vingt heures trente waaye nee na bu jinne bëggee Dakar ku yéeg daanu fête des mères la ñu wax muy fête boo xam ni at moo xamante ne nii dañ ci tànn benn bés ñu jagleel ko yaay yi gis ngeen émission bu am solo bi nga xamante ne ni télévision Futur Média digtal na leen ko waaye bu ñu fàtte ñu mel ni man maanaam seen yaay jiitu bu ñu leen fàtte bu baax parce que man saa yi ñuy wax waxi yaay rek wax dëgg yàlla damay xalaat yaay yëpp yaay yëpp yàlla nañ fi yàgg ñi fi seen yaay nekk yëpp yàlla nañ fi yàgg waaye nañuy bàyyi xel ñu mel ni ñun waaw ñu mel ni man nga xam ne yaay dëddu na tey ñuy ñaanal yaay suma yaay ju baax ji anam sekk yal na yàlla seral ay yaxam xare ko àjjana moom ak néew ya ka fa fekk ak yeleen fa fekk yépp c'est important ñu ñuy bàyyi waale xel bu ñu nee fête des rek ñun ñi nga xamante ni suñu yaay nekku fi tey dëddu na suñu xel dafay tooy kon nañ ñuy defal ñun parce que ñun ci la ñu bokk ndax mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk kon bon fête des à tout les mamans ñëpp nag ñi fi seen yaay nekk yàlla nañ fi yàgg waaye ñi fi yaay dëddu it nañ ciy bàyyi xel bu a baax loolu point d'interrogation la rek kullu nafsin saay xatin mawti képp koo xamante ne nii mos nga dund rek dina mos de yàlla na jàmm yàgg ci réew mi dañu dellu si waat nag mbokk yi ndax nee naa leen tey di ngeen gis loo xamante ne nii musu leen ko gis ci émission bi nga xamante ne ni mooy émission jongante gannaaw dem nañu stade Iba Mar Diop fekki fa Assane Ndiaye dama bëgg rek parce que chaque dimanche ma ne leen euh, télévision Futur Média xàmmeewul promoteur bu ndaw xàmmeewul promoteur bu mag xàmmeewul mbër mu ndaw xàmmeewul mbër mu mag xam nga lu mu xam promoteur tout court mbër tout court ak làmb fu ñu ko mun a tëdd euh, tëggee ci Sénégal ak ci àdduna télévision Futurs Médias dana fa dem léegi nag damaa bëgg rek ñu ne coow gannaaw bu ñu jógee stadium Iba Mar Diop du ñu jël oto bu ñu neexee dañuy dox dem ca Colobane am na mbapat bu am solo bu fa doon am ma digtal leen ko jinne yi ñu ñëwaat nañ leen dem

jël si Diane Faye laa jàngee jeex na waaw waaw Diane Faye sita ak amul fene kese di nuyu mbokki tubaatul di leen sant bu baax ci jàppale bi ñu may jàppale vraiment maa ngi kontaan tubaatul nit ñi mobilisé wu saab ma organisé ñooy jàppale ma maa ngi leen di sant bu baax a baax lamb nag yàgg naa ci defe naa def naa ci sept ans kon maa ngi ci sant yàlla bu baax di góorgóorlu bu baax di sant sama ñaari waajur di sant képp ku dégg tubaatul képp ku dégg kolobaan maa ngi lay sant bu wër di invité bépp mbër boo xamante ne nii mu ngi nekk Sénégal maa ngi lay woo ci ci deuxième Ndeye Ndiaye Tyson moo ñëw ci lamb ji kooku mooy Coro production kolobaan euh, la doon tëggee mbapat ndax nee naa borom bitiku mbagg boo gis boo xaree xol bi magasin bu rey nga ciy fekk Coro ñu ngi lay wax bonne chance di la ñaan euh, nga continuer teg sa tànk ndax képp koo xamante ni nii euh, tàmbale nga lu ndaw ci lu mag lay mujj kon félicitation à Coro waaye mbokk yi du ma tay dama leen di yóbbu rek ñu seeti le promoteur de l' de centralisation ak action sociale di Serigne Modou Niang mu ngi doon tëggee stade bu Njaareem euh, ndax xam nga lamb banlieue nag mooy lamb ji nga xamante ne nii dañuy lancé ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yi waaye xel day fat Mao Cissé dañoo demoon Kaolack Euh, Kaolack nag mu amoon làmb joo xamante ni dafa amoon waaye nag euh, lii di montage bi moom moo parewul ak as production waaye incha allahu rabi dimanche jii di ñëw dinañ ci dellu soit ci nu mu gën a yaatoo ñu ngi jéggalu bu baax a baax ndax Kaolack moom teeru nañu teral nañu euh, mu nekkoon lamb joo xam ne lamb ju mag la ju doon am ca Kaolack waaye ñu ngi ciy jéggalu incha allah dinañ ci dellu soit dimanche bii ak As Production ndax montage bi moom la ñu noppeegul te dañu ko bëgg def loo xamante ni nii lu am solo lay doon waaye nañ dem rek euh, fa nga xamante ni moom mooy ca banlieue ba fekk fa Serigne Modou Niang sama kayaafi bi euh, sëtu Bour Sine di Médoune moo demoon banlieue xool leen mbokk yi ay lamb yu neex la jinne yi nañ leen dem mbay ngoone noo bëri waaw dama bëri ay conseil sama mag yëpp suñu waa ñëpp jàppale ma woo ma entraîneur yow am mën kii dama naroon bàyyi bëri ndax làmb xam nga rek boo si nekkee yan moyen da see baax après gars yi ni ma bëreel mbër nga may entraîné bu turandoo di ma jàppale samay mag di ma jàppale sama gars yi ñoom sos quatre heures la may yee saaga jógoo entraîné may dem di entraîné rey sama bopp ndax tey ma su may du ma ñàkk combat bi Michael man aw ma fayam. mais noo bëree combat bi. waaye dañ dañu gënu combat ndax gars yi dañu ma mënul xeex mënoo xeex da lay dóor ma tax a dëgg sama bopp ko daw jàpp ko tax ko bañ moom bii ko bañ ma daw seen turon digg faaxal ko wër ko ndomb. Boy seddoo tak ngembu Lagos ñu ngi Leewtoo ñoom ñaar Leewtoo bu tey samedi tey jaari fan ci weeru juin atum 2012 san njaareem bu Géejawaay Serigne Modou ñaar tëgg lamb bu banlieue ñaari mbëri daje nañu ñoom ñaar Baxaas ak Boy Seydou Baxaas jàpp na ngemb Baxaas nee na xaas ca ngemb la Boy Seydou ngay wut moom it nu mu seddoo ca ngemb Baxaas la ah Baxaas nee na xaas Baxaas a ngay yëkkati Boy Seydou bañ na Baxaas kon combat baa ngi noonu ndeysaan Baxaas écurie bàyyi ci xel moo daan booy seetloo écurie jëf bu Kër Massar combat baa ngi noonu ndeysaan euh, journée tay bi dafay dëggal ni sëñ Modou dafa gëm lambu banlieue ndax boo xoolee tey match de football dafa am teewul sëñ Modou tegg na amateur yi wuy si nañ mais terewul it euh, mbër yi ñëw nañu ak seen supporters waaw ñëw nañ bu baax maa ngi nuyu suma mbokk Sénégal yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp mbër yi ñëw nañu bu baax loolu day wane ne làmb dafa occupé espace bu am solo ci réew bi ndax fi mu nekk nii toll naa fu nga xam ne ci ni nga xam ne xale yi noonu lañ may sollicité munuma toog benn weekend boo xam ne defuma làmb ñu ngi léew too ñoom ñaar Sakkal ak Ramdaan daan moo dox noonu ci kaw Sakkal moo féete ndijoor Sakkal ne tekk déglu ko léew too ba door na jàppante noonu baaraam ñoom ñaar Sakkal ak Ramdaan Sakkal ak daan Sakkal ak Ramdaan ah Sakkal door na wër na moo Ramdaan rëpp na nu ñu ngay suuf ñu ca suuf ñoom ñaar Sakkal ak Ramdaan kon Ramdaan faqat na ko sànni mu jiitu kon combat baa ngi noonu ndeysaan Ramdana daan kot sëm lay yëkkati noonu ngay lum boy kool nga ngay ma ngay rey noonu ndeysaan Ramdana kool dalit mar fadam daan na sakkal di ma doon kii di mbooloo. kii mooy ngeen def ne ma doo wàcc toogal say tànk déglu ko baax ak bërëb yaa ko ëpp li ngay contact ñu ngay contact xajuñ si moom yaa ngi dégg wàcc say tànk nga déglu ko lu mu andi nga yaa ko bëre foofu yaa ngi dégg mais peut-être damaa yàgg si mbapat bi. dégg déglu say tànk mu ñëw. mu ñëw ñu jàppante mu damante baaraam si la ma song ma may ko tànk bi may ko wet mbor ko waaw jël bi nag maa ngi koy may xoolal ak sama waa koñ waa Cambérène 2 dañ sonn si yaa ngi dégg ak sama waa dëkk waa Saloum waa Malem Odar waa Kaffrine waa Kaolack waa Daaru Xëfër mbokk yeeg si ci combat bi dox diggante ki nga xam ne ndeysaan mooy Ndongo Daara Ndongo Daara war a dajeeg Junior bu Tali Karo gilew too ñaar Leewtoo bu tey la ñuy Leewtoo ñu ngi dégloon te ñoom ñaar ndongo daara école de lutte Guy Mouride bu Rufisque junior Tali Garo écurie Alpulaar